man sànq bu ma gisee loolu damaa tiit sax ma gis ni que moom li mu gaañoo ak sax même deful sax 30 minutes benn waaye tijji ci compte quoi tuddee ko Momo Virginie ba pare dugal ci benn fotom Sénégal euh, salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen di bëggee di leen nuyu di leen char euh, di leen jaajëfal di nuyu téléspectateur People 221 yi nga xam ñu ngi suivre di nuyu waa Sénégal di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg euh, tey nag dañoo naqar am tiis sunu benn frère muy Momo nekk Mouride nekk Série Virgin. yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla sunu borom yërëm ko te jégal ko te xaare ko àjjana euh, di wax ni waaw yàlla fa mu jëm doon këru noflaayam. Bachir yow daanaka gis nañ tey ay vidéo yu bari yuy circulé ci réseaux sociaux yi mu nekk seen i seen seen i ñaar mu mel ni kooku dem tey euh, kenn la ci yow quoi. maa lay nuyu di nuyu sama gaay yu baax yi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan euh, People 221. Mm-hmm. donc voilà quoi tey. mu nekk journée boo xamante ni journée bu métti la yow mi sax yaa ma ko yëgal donc damaa génnoon nekk ci yoon nga yëgal ma ko après je me suis retourné. donc voilà mu doon lu métti quoi. parce que moom moom wax dëgg fa yàlla nit ku baax la nit ku baax la nit bu am yëg-yëg ci nit la nit ku bëgg nit la te très respectueux. vidéo boobu la ñu defoon c' était la première fois ñuy gisee mais bu ñu gisee le courant est vite passé sama diggante ak moom xam nga mu nekk ku baax. Mm-hmm. mais euh, yàlla moom bu defee lu war rek ñun moom amul luñ ci mën lu dul ñaanal ko fi fa mu jëm gënal ko fi mu jógee mm-hmm. donc di ñaaxal ndaw yi bu baax a baax ku nekk xam li ngay def ku nekk xam fi ngay teg sa tànk mm-hmm. ku nekk aussi xam fan ngay dugg mm-hmm. parce que di jommul kenn te aussi di wax sénégalais yi ñu nekk ci réseaux sociaux yi surtout di wax ci nit ñi naka su dul noonu di saaga nit ñi bu ñu xoolee ci lii rek ñu war see jàngat lu bëree bëri tey benn kii la day dugal vidéo nga saago ko ndey wala benn Bachir dugal vidéo ko ndey alors que dinañ ko rob yow tamit bés dina ñu rob la donc nañu rafetal affaire yi nañ ko rafetal ñun ñëpp ñoo ko ñun ñëpp ñoo bokk yam mhm. ñun ñëpp benn lañ donc bu ñu nekkee ci réseaux sociaux c'est juste pour donner de la joie de vivre aux gens c'est pas parce que dañoo woye di wala c'est pas parce que dañoo ñàkk jom tey ni mu demee nii rek ñun ñi ñëpp tey war nañu jàngat mhm. xam ni yàlla moom bu soxlaa amul xale amul mag amul dara mhm. ku mu soxla si kooku lay wuyu te moom moom ñun am nañu njort ni que fee mu jëm du fa wét xam nañu Seydina Muhammad bee la mu bëgg dina ko teeru ci aljana yu gën a kawe mhm. ndax ku jullite la mhm. dëgg fa yàlla surtout ku jullite la benn jour boobu lañ daje mais ba heure waxtu jotee dafa bàyyi li mu doon def dem julli mhm. donc ku jullite la di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax mu mel ne ndaw la boo xam ne fesul à cent pour cent ci réseaux sociaux yi non non moom moom moom moom loolu mosu koo mosu koo yëngal waaw moom moom moom toujours bien retiré waaw malgré mu amoon ci Virginie mais musul bëgg di feeñ musul bëgg di wane waxam moom il s'est toujours bien retiré. Mm-hmm. nekk ndaw bi nga xamante ni dafa gëm li muy def bëgg li muy def. donc di waxaat xale yi rek na ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax xam nga mhm. ñu gën a suñu diggante mhm. parce que lii bu rafetul woon rek lii yëpp du am mhm. parce que dafa rafet ñun ñëpp benn lañ te tey comme ni ñu ñu ngi naan set ndaw la da ay cat ay yàlla bu soxlaa rek yàlla moom mooy jël ku mu soxla tiktok rayewul kenn rayewul yàlla suñu borom moo yónni mooti mooti ñëw jël li mu soxla yóbbu ko mais ñun ñu mën rek mooy ñaanal ko man li may wax tout le temps rek mooy di ñaaxaat sénégalais yi lu ñuy def ci réseaux sociaux ñu bàyyi ko saagante ndey bu ñuy def yàqante bu ñuy def jëriñul dara Mm-hmm. tey su ma yàqee image kii la sama image laa yàq su ma mm-hmm. yàqee sa image sama image laa yàq mm-hmm. donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax moom moo tey li ko dal nii rek ñun ñëpp war nañ ci jàngat bu bëree bëree moo nekkoon série Virginie am na su ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fi mu jëm gënal ko fi mu jógee quoi bu baax voilà tey fii aar na ñu gis ni léegi boo xoolee comme série yu bëri par exemple jeune talent yi rek ñoo koy joué xale yi ñoo koy joué ba ci réseaux sociaux yi mën naa ne xale yi rek actuellement ni ñoo ci nekk à cent pour cent ñu gis ni presque deux mille vingt deux ba deux mille vingt un bi ay ndaw rek ñooy dem yow ngay ndaw nekk ci milieu bi ban lan nga ciy xalaat waaw xam nga rek yàlla moom bu soxla ku soxla da ngay ñàkk quoi xam nga parce que voilà parce que tey jii ñun ñëpp ñun ñëpp fi ne mais ñun ñëpp fi jóge ko un mhm. xam nga tey jii tey comme nu fi suñu frère jógee quoi tey keneen ak keneen ak keneen ak keneen mën na fi mun na fi jógee quoi. Uh-huh. xam nga mais ay réseaux sociaux lépp amul importance li am importance mooy tey jii maanaam ñu ñu ñu ñu xam nga tey ñu ñu ñu xam ñu ñaanal ko bu baax a baax. Uh-huh. aussi ñun duñu dese ci suñu live ñu rafetal ko bu baax. Uh-huh. te xam ni aar bi nii aar bi yaatu na mais rafet na quoi. dëgg nañ ko jéem a rafetal ba pare moo gën quoi. dëgg la voilà moo gën. dëgg la tey nga nekk ndaw. nekk ci série bi di Mariama nga nekk ci acteur du jeu ak say nawle yi ñu fi toogal. Mhm. Euh, tey est-ce que du maanaam mënu ma ko tuddee risque mais tey boo xoolee à l'époque ñoom Sanex amuñu woon yenn âge yi di feeñ ci télé. Mhm. tey nouvelle génération bi nga gis ni da nekk ndaw coow li bari. parce que mhm. loolu noonu nekkul risque ci xale. waaw non loolu moom xam nga rek mun naa ne mun naa ne du risque quoi xam nga parce que tam ñoom yàllaa leen fi tegoon. xam nga te sax ba léegi ñu ngi fi quoi mais yow tamit yàlla la dénk dara rek xam nga dénk ko say morom aussi yow tam lii yoon mooy nga sàmm ko rek normal. Mhm. xam nga parce que télé moom mun nañu télé tey du dara. Mhm. xam nga télé bon <laughs> tey télé tey télé dara. Mhm. tey boo liggéeyee li nga war a liggéey dëgg dëgg dëgg te ne ci aar bi gëm ko. dootoo sax xoolati télé quoi. xam nga donc gëm la rek aussi tamit yàlla bu la dénkee dara maanaam ngay feeñ télé. nit ñi di la suivre aussi tamit il faut bon il faut donner des xam rek xam nga ah il faut donner des bons exemples quoi. en mhm, mhm. di ko di ko xam di ko jox gars yi. Mhm. gars di ci mën a jëriñu. maanaam benn télé warul nekk lenn loo xamante ne da war a mun ñëw nii rek feeñ ñii après voilà quoi ndaw bi seetaan genre di la xool nii amul dara lu muy jële si yow quoi. xam nga bu dee baax. wala bu dee ay leçon wala bu dee leneen ak leneen war na ko jëlee ci yow quoi. comprendre nga ça mais pas romb dem quoi. Mm-hmm. xam nga loolu moo xaw a wàññi suñu valeur quoi ndax dangay ngay gis léegi ñu nekk ci télé bi da ngay gis sax ay doomu adama yoo xamante ni maam xam nga ñu ñëw taxaw télé bi di def ay yoo xamante ni xam nga lii ndaw ñi mënuñu see jàng. Mm-hmm. suñu rakk yi mënuñu see jàng keneen ak keneen ak keneen ñun sax xam xaw nañ mm-hmm. tane ndax ñu ngi bind suñu scénario des suñu film bu mag. dugal ko. ndaw yi di si jàng keneen ak keneen keneen ak keneen xam moo woon nekk télé di fecc. def nii di def nii di def nii baax na ci mais. pas chaque instant quoi. voilà euh, kii la fi may ñëwee mooy. tey yéen ndaw ñu nekk ci milieu bi yan jafe-jafe ngeen ñu dund entre seen famille comme ni ko Bachir souligné léegi saaga yi kirti yi des fois surtout yéen seen série boobu ngay joué loo xamante ni tey ku xamul mën na la adressé leneen alors que demeewul noonu tey ku leen fekk toog waxtaan maa leen fekk nañu waxtaanee nii la ñu demee màggal lii la sol mu mel ni li di wane ci ci ci ci ci série yi c'est différent ak li nga xam ne dañu koy dund. Mhm. xam nga rek gis nga li nga wax noonu moom c'est important quoi. Mhm. tamit vraiment képp kuy def tey série quoi xam di ñaan tey sa projet dara quoi loolu nga siy ñaan yàlla quoi. Mhm. tey nga dem ba nit ñi di ko yëg. maam xam yëg-yëg bi ci maa xam yëg-yëg bi ko nit ñi di yëg quoi. mooy tax tey kenn ku ci nekk maam xam nga da koy dund sa dund xam nga moom mooy waral tey boo génnee ñeneen ñi di la saaga xam nga moom mooy waral tey boo génnee ñeneen ñi di la wala tey ñii di la ñii di la wax naka su dul noonu. Mm-hmm. ñii di la wax luñ la warul wax quoi comprendre nga. parce que tey jii nii xam nga rek bon tey sa projet sa mbind c'est-à-dire xaw na jaar yoon ba nga xamante ni sénégalais yi dugg nañ ci quoi. Mm-hmm. xam nga te kenn ku ci nekk aussi je pense que loolu ngay ñaan yàlla quoi ci par rapport ak rôle bi nag moom xam nga li ma ciy wax moom. bon c'est pas compliqué quoi ndax que durant bi ñu dalee def aar léegi xam nga am nañ ci benn expérience boo xamante ni vraiment lu ñu mënti jouer. Mhm. génn dox un pas de pas nit songuñu wala dóor ñu wala saago ñu am nañ maîtrise yu tey suñu bopp quoi. ndeysaan te xam ni que voilà quoi. alors da nga koy dund ci aar bi. très bien ah voilà xam non si bu baax a baax a baax des fois xam nga des ñu dalay woo. xam nga wax la lu mu la waroon wax dépassé la wala mu saaga la wala nit message la saaga la loolu day am quoi en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga doo bàyyi diw yow doo ñàpp bàyyi diw saaga quoi. waaw xam nga noonu en fait tey moom lu muy dund la quoi parce que yaa ko ci dugal ba pare. Mm-hmm. kon moom bu tourné saaga la yow nga yow da nga war a a maîtriser tey sa bopp quoi xam ni kat voilà. moom actuellement nii nii xam nga. Mm-hmm. moom fi mu nekk. Mm-hmm. yow yaa ko fa yóbbu. Mm-hmm. kon nag xam nga yow amul maîtrise rek te sa bopp nga bàyyi ko mu def li muy def xam nga noonu quoi. saaga yi nag moom c'est pas méchant quoi ndax saaga taxul fen xam nga ñun moom ba voilà quoi ñun on est des te ñaan nañu yàlla tamit def yeneen yu gën a pire yooyu nga xamante ni dañ ci dugg bu ñu gisee sax bëgg ñoo rey quoi. d'accord mais façon na am ay leçons yoo xam mën na jëriñ ndaw ñi quoi. waaw ah, ñun loolu ban yan conseil ban ban ban témoignage ngay def ci nga xamante ni. mooy sa frère bi dem muy Momo. waaw man moom li may wax mooy na lépp rafet rek surtout xam nga ndax tamit yàlla xamewul ndaw xamewul mag. Mhm. tey jii sawaay daan nañ ko seetaan tey bu doon def ay rôle yu xawat comme ay rôle yu naka su dul noonu ko comme ni ko gars yi wax nii. Mhm. tey ñi dañ koy waxee ah tey bu saay coupé caméra yi buñ demee après dañ koy wax. mais boo xoolee rôle yu mu doon def rôle bu am importance la booy boo xamante ne du tooñ kuul ñun daay dañ leen doon suivre ah barki Serigne Touba dañ leen doon suivre booy boo xam du tooñ nekk ci classe bi xam nga benn excitant la mooy chewing ko moom la utiliser boo leen voilà voilà ah. xam nga kon kon donc yooyu noonu ay affaire la yu ba pare tamit bëgg jàng. Hmm. jàngal booy ni que boo nekkee xale da war a bëgg jàng. d'accord comprendre nga du la teree def li nga war a def. Hmm. kon yooyu noonu ay affaire la yoo xamante ni maanaam hmm. boo nekkee ndaw ne ci aar bi di jouer ay yenn rôle yi nii maanaam da war a mën a sax même bu fekkee rôle rôle ku soxla lañ la jox sax dee si jàllale ay leçons yoo xamante ne nii yu am importance la quoi. kooku lu baax rek lañ ko mën a waxal. ndax xamuñu ci moom leneen. vraiment quoi. comprendre nga ndax maîtriser wuñ ko carrément. Mhm. mais vraiment man ku baax la ma jox. Mhm. te la ma jox quoi. Mhm. ndax am na benn programme bu ñu mus a daje quoi mais daf ma xool ma ko quoi. xam nga nga bu ñu mbëkkantee des fois a rusante quoi. comprendre nga mais après xam naa bu ñu nuyante woon rek. xam naa dinañ dinañ kii quoi mais yàlla dogalul loolu. Uh-huh. xam nga kon donc maa ngi koy ñaanal quoi fi mu jëm nii yi xam nga gënal ko fi mu jugee. yenn ndaw yi nga xam nekk nañ ci aar tamit. lenn lu ci waay di def moo xam vidéo la wala lu mu ci mën di doon nga xam ne actuellement dañu nekk ci monde digital. waaw lépp c'est immortel par rapport ak image. gis parce que da ngay gis waay voilà wooy boobu deewee na ndaw. Mhm. xaw ma ñun fu ñu jëm. bàyyi ma ñi naan waxoo ma woon lii. yii ma tey gis nañ maa kii toog nañ. Mhm. am ñu ci ubbi compte. di ubbi ci tur boobu compte boobu. compte ji di utiliser bàyyi. si si mais loolu loolu loolu barki yàlla non non mais si mais mais ah. am na ñoo xam te ni xam nga am na dañ ciy te bàyyi loolu gaan day am bàyyi lu leer laa lay daal ni te boo leen mayee kanam tuuri ñu créé ay tiset def ci mënoo rip di ko jaay mais monde boobu lañ toll quoi. moo tax waram loolu ñu xamatuñ fu ñu jëm quoi. Mhm. parce que yaa ngi lancé message nga xamante ni dañuy profité ci deewu nit ki. non dañuy profité ci deewu nit ki te te te li nga war a njëkk a def mooy jooy lu tax ngay jooy a jooy mais boo wéetee quoi ñun foofu lañ ko yitewoo quoi. Mhm. mais war a mën a njëkk def mooy dóor ko faatixa onze lixlaas ñaanal ko quoi. Mm-hmm. fi mu jëm yaa xam nga rek fu mu mm-hmm. jëm. Mm-hmm. gënal ko fi mu jugee quoi. mais jooy jooy jooy jooy jooy. mais dañ ko war a ñaanal. ndeysaan xam nga ndaw la quoi. dew ndaw dafa metti bàyyi. barki Serigne Touba. billaay wallaay taalaahi xam nga rek mooy loolu. xamuñu nag carrément moo def mënuñu dugg carrément mais. dew ndaw Fall dafa metti suba. on sait jamais quoi bu jouru rab bi tey boo demee di nga comprendre dew ndaw dafa metti dëgg la dëgg la mu mel ni dama koy généraliser joxal ma sa waay parce que ñëpp ci am euh, pas de responsabilité mu mel ni léegi réseaux sociaux bu nit deewee rek da ngay gis dañuy profiter di utiliser turam ci ci ci ginnaaw ko dee nga war ko ñaanal moo man loolu loolu la ma wax quoi boo seetloo benn phénomène la tey sénégalais nit day dee ñu profiter xam am na ñoo xam dañ siy jublu lu baax am ñoo xam dañ siy jublu lu bon. parce que mhm. naka nit di doyoo nga tijji compte mais compte boobu parce nga bëgg nit ñi abonné a nit ñi mhm. mhm. deewee yaakaar naa lu rafet nga si war a def. jëm ko ñaanal yàlla jégal ko. te yàlla bàyyi ñu fi parce def lu baax rek am solo. mais dañoo toll jamono joo xam nit ñi ragalatuñu dara ragalatuñu dara leen neex la def ndax xaalis wala buzz wala leneen ak leneen jaral na leen lu ne. Hmm. te xamuñ loolu tôt ou tard day nekk loo xam ne luy jeex. parce que hmm. lii dund la mais la vraie vie. Hmm. mooy après bu ñëpp deewee. loolu lañ comprendre lu nag. Euh, ban message ngay lancé ci li gars yi wax rek nga gis ni nit ki bu deewee ñu bari dañ ciy profité di ko bilay compte ñi dem di xool ay photo yu ñu àndee woon di ci genre yow yaa ci TikTok bi. naka nga jàngate loolu. man sànq bu ma gisee loolu damaa tiit sax ma gis ni que moom moom li mu gaañoo ak sax même deful sax 30 minutes benn waaye tijji ci compte tuddee ko moom moo Virginie ba pare dugal ci benn fotom ay nit di fa dem di fa def rip quoi loolu moom daf maa choqué tellement que je me suis dit nan la nit mënee di def nii koo xamante ne dee na yaa même pas 2 de temps wala 3 heures de temps yow nga tijji compte ci turam ba pare dugal di ci wax rip. donc je me suis dit que bu nit ñi demee ba toolati foofu rek ma xam ni que nit ñi amatuñu kers nit ñi amatuñu lu ñuy rus mm-hmm. je pense que loolu war nañ ko mettre sànq sa wax na lu am solo Sénégal nga gis nit dee nga gis koo xam ne day dugal sa photo bind ci rib bu paree mu tekki di souhaiter nit joyeux anniversaire mm-hmm. wala bu paree mu dugal beneen statut fu muy feccee wala fu muy fu muy fu muy defee leneen quoi fekkee auparavant dugal nga nit ku dee ba pare mm-hmm. soit donc bu ñu demee ba nit ñi di toll euh, genre mentalité je me suis dit que problème quoi. donc mm-hmm. nga souhaité nit ki léegi léegi rip. Mm-hmm. même pas 15 secondes nga dugal ci beneen stade mm-hmm. dugal ci joyeux anniversaire wala dugal ci yow vidéo bi nga xamante ni yaa ngi fecc. donc cela veut dire que yow li nga defoon auparavant loolu safu la. da nga def juste pour le fun wala da nga def juste pour le plaisir. dañ delloo suñu xel ci yàlla. te xam ne ñun ñëpp ci moom d'accord boo leen wooyee da nga naan ne ñu ngi suñuy activité mais lu mu doon def ñëpp la marqué mhm. tey boo xoolee Sénégal yëpp amul kooku estatuwul mhm. parce que li mu doon def dafa marqué nit ñi mhm. nekk ndaw bëgg a jàng comme ni ko sawaay waxee bëgg singom ba ñëpp di koo ko tooñee mu nekk ku bëgg a jàng bëgg lu mu doon def tey boo xoolee képp ku wax ci moom que ça soit muy pot que ça soit muy Adja que ça soit muy ñu mu bokkal séew lu baax la wax ci moom mm-hmm. te nit ki je pense que boo demee ba am woy bu rafet rek war nga sant yàlla mm-hmm. comme li ma wax sànq rek man sama xel dal na ci moomoo bu baax mm-hmm. parce que xam naa ne ku jullite woon xale xale bu bëggoon diinam la loolu la ñuy xale yi nekk ci réseaux sociaux yi warul tax ngay def naka su dul noonu wala di wax naka su dul noonu comme ni ko moom moo wax rek Mm-hmm. te xam ni que àdduna bi jeex na ba pare mm-hmm. nañ jàppalante mm-hmm. bëggante ku nekk yéene sa morom jàmm waaw te xam ne moom li ci des ñun ñun ndaw ñi ñun ñoo ko mën a àggali tey réew mi toll na foo xamante ni ñun ndaw ñun ñoo ko mën a yóbbul ci kanam nan lañ koy yóbbulee ci kanam ñu bëggante suñu biir jàppante suñu biir di waxante jàmm gars yi tey la gisante mais gis nga ba ñu ñëwee dañoo nuyante si soppante mhm. xam mhm. parce que on se voit sur les réseaux sociaux mhm. tey bu rafetul woon su ma fi ñëwee fee taxaw wala ñoom su leen nuyoo sax dañu ne non non moom lu muy def ci internet bi neexuñu quoi na taxawee ne mais c'est parce que dafa rafet ba ma ñëwee ñëpp dañ ma accueillir xam nga ñu waxtaan suñu biir donc di ñaanal moomoo bu baax a baax di ñaanal waa Sénégal yëpp nañ ko ñaanal mel ne ci yow laay jeexale parce que li nga mayoon ci waxtu jeex na euh, tey kii dafa sëriñoo benn point bu am solo ki mu doonoon mhm. moo tax tey wala li mu doon joué mhm. moo tax tey yéen ñëpp ngeen bàyyi seeni activité mhm. toog heure bi nii ngir di témoigner ci moom lu baax est-ce que tey nekk ndaw wala tey maison production ñëw proposé la yenn série yi nga bëgg ay vie wala bëgg visibilité war na tax nga accepté ko te xalaatoo bés bi waaw xam nga bis bi moom moo nekk moom moo nekk cest moo nekk moo nekk moo nekk bis boo xamante ne nii ku ko dul fàttaliku rek c'est-à-dire yow ak mun naa ne yow ak xar yi yéen a yem quoi en mm-hmm, mm-hmm. parce que xar yi sax xam nga xar yi sax gën la tane ndax am na nit ñoo xam te ñu ngi dund mais jàpp nañ ni dee amul quoi en fait. Mm-hmm. non si parce que xam nga parce que man mënu ma imaginer yéen xam nga tey man mënu ma maan yenn affaire yi nii sànq yéen a ngi wax lu importance loo xam te ni. kenn moo ëpp li ñu koy def. dañuy jël xam nga dañuy jël seen benn comme comme tey boo bi décédé nii jël photo Momo dugal ko nga bësaat cliqué waat beneen beneen beneen kii bi beneen pàcc bi nga gisaat ñuy souhaité joyeux anniversaire beneen bi ñu dugal fecc bés avancé quoi. waaw non jàpp non jàppuñ ko muy dara dara dara. te mhm. affaire yu garaaw la quoi. Mhm. xam nga nga. Mhm. te te xam rek nekk na loo xamante ni maanaam lu ci waay di def rek na ko xam. tamit ëllëg du añ du reer mais lu mat a sóoraale la. ku yaakaar ni tamit mun na rëcc suñu borom yaa ngi nax sa bopp. Mhm. yaa ngi comprendre bu baax. Mhm. ci waaye di def daal na nekk lu baax. Mhm. xam nga. na nekk loo xamante ni ëllëg say doom bu ñu ñëwee. vraiment dina nekk loo xamante ni dinañ ko mën a nettali ñoom ñu koy mën a dégg. comprendre nga. tamit ku mën a dund ku ne. sóoraaleel say doom sóoraaleel ëllëg di nga am jabar di am. di am xama di nga am ay set sax quoi. Mm-hmm. comprendre nga nag lépp lu fi waay mën a def yaakaar ni actuellement jeex na jeexagul ah. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. am na ñoo xamante ni say fils la ñuy xaar ñu après ñu daajal leen ni mu demee ah na la bi sa père nekkee woon na la bi sa yaay nekkee woon. xam nga kon donc nag lépp rek na nice. na chill te xam ne bés bi dina ñëw. bis dina ñëw gaan gaa dañ lay jagat jagatee de. Mhm. dugal la ci xam nga doo mën dara. ndeysaan Serigne Touba. ndeysaan yooyu noonu dafa jara xam nga dafa jara bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. xam nga di conseiller gars yi tamit ñu yokk lu baax li ñu def quoi. Mhm. xam nga te bës tamit ba ñu jaral dara. Mm-hmm. bu ñu saaga kenn. bu ñu mm-hmm. dóor kenn bu ñu liggéey kenn. Mm-hmm. bu ñu dem sëriñ di liggéey kenn. jaru ko quoi. ak sëriñ Tuubaa. nga am doomu aadama yoo xam te ne loolu xam nga loolu noonu loolu noonu saa loolu noonu xam nga dañ koy def mais man gëmuma ko quoi man gëmuma gëmuma loolu. man gëmuma nit war na mën a soxor à ce point dem ci dem gaan dafa tudd turu nit gaan xam nga pour jëm ko daaneel nag yow nga avancé quoi non loolu gëmuma ko mën ma ko imaginer. suma life billahi wallahi di conseil gars yëpp nag nañ dalal suñu xel te xam ne yàllaa fi nekk waa mm-hmm. yëpp lu yàlla neen la billaay wallaay loolu tey est-ce que pare ngeen waa man man waa team Mariama laa ko mën a tuddee waaw def délégation dem jaale ki nga xamante ni mooy seen frère waaw ah, non incha allahu rabi incha allahu rabi loolu dañ koy def parce que mm-hmm. ñoo boo ko aar bu dul dara mm-hmm. xamoon parce que tamit lii nii tey ñoom ñu xewle ñun mënoon nañ ko xewle quoi dëgg la comprendre nga. Mhm. kon donc ñun ñii ñun bu ñu demee dañu war a dem bu ñu mhm. demul dañu war a dem. Mhm. te gaa yëpp incha allah dinañ dajaloo def benn délégation xam nga. dem gaaleem quoi. incha allah. wàcc fa gis yaayam quoi. ama ko ñu jaale ko siyaare ko affaire yooyu noonu quoi. d' accord comprendre nga. d' accord voilà quoi parce que loolu mooy parce que loolu mooy kii bi quoi. d' accord d' accord tey sa la fin xam naa da ngay yóbbaale gaa yëpp. waaw doon benn tàggatoo. waaw bon man moom man moom xam nga. maay maay maay maay xam nga maay maay bëggee ñëpp quoi maay mhm. bëggee waa people de 221 quoi mhm, mhm. maa ngi bëggee aussi internet yu ñuy seetaan xam nga maa ngi bëggee tamit ñi tax tam ñi toog fii ko quoi moom ñi nga xamante ni ñoo bàyyi seen lépp du ñu suivre xam nga abonné si ñun quoi xam nga lu ñu dugal bu neexee bu neexul yëpp dañ koy aimé quoi lépp rek pour bëgg suñu avancement quoi di bëgg aussi tamit suñu mbokk yi nga xam ñoom lañ ko bokkal comme ku ci mel ni Bachir quoi. kooku sama mm-hmm. turandoo la. Mm-hmm. xam nga moom vraiment moom ku oyof la ñu ngi doog a gisante mais ku mm-hmm. oyof la quoi ku baax la. xam nga te ñun te lii la quoi li lañ am ci aar bi quoi. dëgg la gisante foo kaf reetaan échange numéro après nekk ay gaañ. dëgg la après mu jeex comprendre nga. parce que ñoo mën a dajaloo. dëgg la jël drapeau Sénégal yóbbu ko international. te mhm. éviter concurrence suñu biir loolu kese la. Mhm. loolu kese bu ah, mhm. leneen. xam nga vraiment maa ngi bëggee ñëpp nag di kontaan ci émission bu baax baax parce que suñu base ngeen ñu fekk fi mooy xeer yi. xam nga dañoo am naqar nag tey mais sinon barki Serigne Touba xam nga dañuy dañuy gën a yaatal. vraiment quoi kontaan nga xam la demee quoi. voilà yi mu ngi noonu ah am contentement euh, ci émission bi yox dëgg yàlla bëggoon nañ nag bu ñuy ñëw mu doon loo xam ne lu neex la doon. mais nag jàmbeeg pexem buur beeg dogalam comme tey dañu am naqar ma leen di sant bu baax a baax nag parce que tey yombul nga dajale acteurs yi yëpp ñu def témoignage ci benn nekk amaana nag loolu moomoo moo ko liggéey parce que tey moomoo bu fi joué leneen aussi tamit wala mu nekk keneen ci réew mi koo ci dana la noo kook du wax ci moom parce que ñoom ñëpp am ay image ñoom ñëpp ay international lañ kon tey bu bàyyi seen jite yi bu dem deewee na ndaw woyam boobu noonu kon dañ koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jégal ko te xaaral ko na di leen jox yeneen dig daje fii ci People 221 wala